doole moo ko fi génn boobu mu dem ba ci kanam ne d'accord ñu taxaw wax leen ne baat boobu dañ ko wéeru ci loi loi ba la mu santaane mooy ne fukki fan juróom-ñett mun naa continuer di toog ci place nguur wante su passé bés booba xam leen ne su naree continuer ci nguur rebelle laa doon nit ñi dégg ko ak seen nopp wala ñu ciit sax ne waaw kii lu koy wax ni mbaa waaju di def fàtte ko boo pare ne teg nag di xaar waaye naka la mujj dem na ci jàmm ngeen jot seen réew ci jàmm seen doole taxaw seen baat taxaw ci seen réew bés boobu la seen buumi njaam takk ba faw ngeen xam ne kenn mënatut a toog ci réew bi ku wéeruwul ci seen baat kon nag soo sonnee tey yaa sonnal sa من شرح caabi génn ci coono mu ngi sa loxo bunti génn ci coono mu ngi sa loxo ki caabi ak bunte nekk ci loxoom mu ne mu ngi ci kaso mënut a génn kooku nag bàyyi ko bare bàyyi ko bare mu mel ni réew mi su nekkee kaso ñàkk ci yow mu nekk kaso toroxtànge ci yow nekk kaso noteel ci yow nekk kaso réer ci yow xamal ne yaa ngi yore caabi bi te ñeneen ci bari ci décembre su la neexee nga ubbi dal di am sa loolu mooy wax ngeen déglu bu baax ngeen xam li leen sonnal yéen benn kay yéen nekk ci tool yi gerte gi ngeen doon béy moom lañuy ñuy jaay ndax ngeen mun cee am ca jamono nguuru Jawaar ñu ne dañoo dimbale béykat bi ñu taxawal coopérative coopérative bi dem ci banque bi ñuy denc xaalis di fa lebe te soo leb da nga war a fay day sooy fay bénéfice dañ ko càppe ñoom pour am bénéfice ñoom ci seen bopp banque yi toog am bénéfice suñ la lebalee yow béykat bi engrais sooy fay dina ca génnee seen bénéfice génnee ca bénéfice banque xañ ngaa am dara looloo tax béykat ndóol ci suufi Gàmbi marché àddina si itam suñ ne juróom fukk la ñoo jaayee yow ñu ñëw jëndee ko ci sa loxo ñaar moo tax gis ngeen ne jënd gerte léegi-léeg ñu ne Gambie lii la ñoo jaayee beneen bés ñu ne lii la ñoo jaayee te yëpp day dem si marché àddina mooy wane bénéfice bi nga bëgg a jëlee ci béykat bi mooy tax nga def njëkk ñu ne soo dem naree dëkk umbi njàng gannaaw alali réew mi ñëpp ko moom alal dem ngi ca kees ga lu tax may dem di lebi ci kees yi baam pour wala dimbale béykat lu tax kees bi nga xam ne ñëpp ko moom ñu dénk ko njiit ne ko alali ñëpp la da ko war a delloo nit ñi ndax ñoom itam ñu mën a dunda lu tax doo mën a jël te kees boobu nga xam ne ñëpp ko moom dal di jox béykat engrais jox ko jiwu jox ko machine suy fay mu fay lan ko jox te du ci teg benn góor looloo tax ñu ne doxalin mooy suqal réew doxalin mooy suqali réew ñu ne doxalin bi fi nekkoon daf leen diigal ñun day ñëw pour suqali leen ci beneen doxalin pour gis kon nag ci alali réew mi béykat bu nekk war na caa am engrais jiw machine liggéey delloo waat lañ ko jox te du seet ak benn bon marché àddina sa itam suñ ne lii mooy njëg la béykat bi dinañ xam ñëpp ne lii mooy njëg la ca marché àddina si ñu ñëw ne saaku yi dinañ ci génnee lii ñay soxal pour jëndante bi dinañ leen fay lii lu nekk ñu génne ko ca ñëpp a xam ne lii lañ caa génne ngir loolu moo war a la ca des ñu ne béykat yaa moom ku ko doxalee mbéy béykat bi am amam dafay gën a yokk te béykat bi dafaa nekk jëndkat su ko defee ñuy jaay ca dëkk ba itam seen am am dafaa gën a yokk ña nga xam ne ñooy jël mbiri béy itam di ko ëlbatiwaat ni dugub kii mun nga koo ëlbati mu dal di nekk fëri am na ñoo xam ne ñu ngi toog mun nga leen a jox milling machine loolu nekk seen bunti am-am ñu jël dugub googu di ko ëlbati mu nekk fëriñ ña leen di lakk mbuuru su ko defee fëriñ ba di dem ci lakk di mbuuru yi. ñu tey mbaalo mi muy dem ñeneen ñi di ko ëlbati muy dem ci ñuy jaay su ko defee kiy jënd itam. dina war a dem ci keesu réew mooma ñu lebal ko xaalis boo xam ne bii moom itam dina jënd ba pare jaayaatu te la nga xam ne moom laa jël ca foofa duñ ca teg dara loo xam ne nii dafaa nekk bu rafet su ko defee ñooñu itam dinañ mën a nekk fëri ñooñu dinañ mën a dem ñu jox leen te duñ ca teg benn bu rafet su ko defee mboolem doomi réew dafaa mën a liggéey te kii jënd itam dina mën a am lu mu jënd kay jaay am na lu mu mun a jaay loolu mooy réew bon nag ci gàttal ñaari yëpp moo am solo ci réew mooy nit dafa war a dund nit dafa war a am kaaraange kër jarbe fii su réew mi doon doxee ñu war a doxee doo leen toog dëkk bi amul kees te nii réew di doxee ni dëkk di doxee ak ni kër di doxee yëpp benn kër bu amul dafa tas kër bu amul dafa tas réew mu amul dafa tas saraxtu la muy boo xool sarax lu nekk rek sarax moo tax ñu ne doxalin bu bees jëkk bu nekk dafa war a am kees sellem koyi ka kees googu laa dugg dëkk ba ci boppam dafa am ci am-am mun ngaa am tooli dëkk boo xam ne di ko jox engrais jiwu machine ñu liggéey ko lañ liggéey dafa dem ca kees dëkk ba su jigéen ñi soxlee machine yi nga jëlee ko ca kees lopitaan yu ndaw nga jëlee ko ca kees ba jàngookaay ndaw nga jëlee ko ca kees ba mboolem lu tuuti loo xam ne bii dëkk bi war na koo def dafaa jógee ca kees ko nguur gu mag gi nag di toppatoo yoon yu mag yi lopitaan yu mag yi jàngukaay yu mag yi mboolem lu mag nguur gu mag koo toppatoo mboolem lu ndaw dëkk baa koo toppatoo su ko defee yow sa am am yokkul sa am am dëkk yokkul ana coono moo tax ñu ne suñu doxalin mooy dàq ndóol ñii seen doxalin mooy yokk ndóol foofu la suñ doxalin ak seen doxalin wuute ñu ne itam seen kaaraange dara ëpp ko solo moo tax ñu ne dëkk bu nekk ni réew di doxee noonu la dëkk bi di doxee dëkk bi dina am buntu kaaraange jël ay ndawam ñu jàngal leen naka la ñu kaaraange dëkk boobu fa seen doole am mun nañu oo police yi ak seen oto ñu daw si jàppale waaye fekk dëkk ba yore na kaaraange tey doomi dëkk nag duñ ñëw di la nox su ko defee no teel dafaa dal di génn nit ñi buggante jàppalante nga xam ne du jarati police ba ca biti di ñëwati ci biir dëkk yi ndax ñoo ko toppatoo seen bopp ñu ne nii la ñoo yoree kaddu gi nag gën naa yaatu lii la wande wax ci foog ñu emale ko ndax caravane tool a wande ci jamono rali ñoom dinañ seet fi war a am rali ci seenu nortaan fii fexe leen daal ngeen forcé leen ñu am rali bu mag ci kër Jarko fii xam ne lu toll ci ñetti waxtu ba lu ëpp loolu dinañ ko waxtaane àddina bi yëpp bu ko defee li nit war a xam mu war koo xam ndax fàtte ngeen la ma leen waxoon bañ doon njëkk a wër man maa siidiya ci réew mi man léebaatul leen dinaa delluwaat ca léebaatu boobu ñett fukki at ak lu passé tegal ne leen mbott mi dafa juddu ci teen bi ci jamono nawet lam soxla pour lekk yëpp mu nga woon ca ca ca teen picc mi yegg na ci àddina te wër na te xam na ne gannaaw nawet noor mu ñëw ci pindi teen bi ne mbott bi génnal ma xamal la àddina mbott ne ko demal sa yoon suma àddina fii la ci pindi li ma soxla yëpp maa ngi mu ne ko mbott bàyyi sa xel de àddina bu doon tànk de génnal seen marxaman naa mu ne ko demal sa yoon dafa dem ñetti weer ca kanam nawet ba jeex noor ba ñëw teen ya wow mbott amatul lu mu lekk mu toog xiif bu nga rey mu seet ca kaw di yaakaar ne picc ñëw na fekk picc dem na yoon na ñu teg ca ñetti fan mbott ma ñibbi àllaaxira ñu ne bon nag nit su bëggee xalaat rëccute kalaanu ci bon jamono ji gannaaw ñu ngee dund te kenn bëgg nga judd ci coono màggee ci coono màggee ci coono tee ci coono sa doom ci coono tee ci coono set ci coono te tee ci coono te caabi gi ak bunte gi mu ci sa loxo boo teggee ci kasa alef katoɗoman Tidiane